am bu ñuy traité wala waxtaan woo xam ne dañ koy waxtaane waaye ni ko sëriñ bi waxe léegi ab dars la bind bu ñu fàttaliku ab dars ci fiq al islaami boo xam ne suñ boroom xam ngeen ne diine bi nekk muy islaam day diine boo xam ne lépp daf ko rëdd dañ koy tudde ak sharia muy yoon kon daa yoonal lépp wax na te ci lañu war a jaar sariya lu yaatu la waaye nag tomb bi ñu ki tànnal nekk tomb bu ci am solo lool bu ëpp boo xam ne ku ci ne ci ñun wala ku ci ne ci juddu ñépp bis bi yàlla sàkk nga war di ko jëfe di ko jànkonte ak moom muy an nafaqa wa ahkaamuha euh, tomb la boo xam ne kon dafa aju ci li ñu tuddee fiqhul usra balañ cee ñëw dañuy fàttali bokk yépp ñu xam ne islaam day diine boo xam ne euh, comme niñ ko waxee léegi dafa yoonal mbir yépp ngir ñu jaar ci waaye tomb bi ñu fas yéene fàttaliku muy benn bindi day mel ne ñu bari ci ñun léeg-léeg ñu xaw ko fàtt ñu bari ci ñun léeg-léeg ñu xaw koo réere loolu nag jur ay jeexit yu xaw a doy waar ci àdduna si juru ko ci ay jëmm rek waaye da ko jur sax ba ci société yi ak ci nit ñëpp ñàkk gi ñàkk jaar ci yoon wi ko sariyan rëdde wala ñu bari tënkuwuñ ci loolu mooy jur ay jafe-jafe yu bari yoo xam ne société bi mi ngi koy dund donte nit ñi yu bari duñ ko seet duñ ko bàyyi xel waaye ay jafe-jafe yu am la léeg-léeg ñu gis ak jigéen euh, mu yor doomam di wër léeg-léeg mu yor këyit woo xam ne sax ordonnance moo ci nekk ngir di sàkk ku ko jëndal te fekk kijur xale bi mi ngi teew maanaam mi ngi dund ki xale bi yëg na ne doom jàng fi am na kàttan ci def loolu waaye teewul yaay ji mooy wër di lijjanti loolu loolu jafe-jafe la boo xam ne day wane ne lu aju ci wàllu an nafaqa des nañ ko jëfe ni mu waree loolu dañuy fàttali waykat ba waxoon taqulu yaa rabbi laa tatruk bila labanin haasi radiata warhamni wa iyaha loolu dañuy fàttali bayit yooyu loolu jur ba tey ñu gis ak jigéen léeg-léeg muy jànkonteeg jafe-jafe ferey doomam wala ñaari doomam wala ñetti doomam wallu ko ëpp te fekk li ma waxoon léegi rek maanaam taxawaay bi waroon am mu amut léeg-léeg ñu gis tamit ay jigéen ñu xëy suba teel fajar dem ci yëngukaay bu demee ba naaj lañ am ci li ñuy jënde lu ñu dunde te fekk seeni borom kër ñu ngi fi te loolu bokkut ak ni ko islaam rëddee bokkut ak sariya loolu ñu ngi koy gis di ko teg bët loolu ñàkk xam bind bi aju ci an nafaxa dëgg-dëgg moo ko waral léegi lañu gis ay ndaw ay xale yoo xam ne ñu ngi mbedd yi ñenn ñi dañu mujj nekk ay bandi ñenn ñi mujj nekk ñu réer ñenn ñi mujj nekk ay dokkati mbedd ñenn ñi mujj nekk ay naankati lu ñaaw te fekk booy xool la ci ëpp la ko waral bokk na ci maanaam taxawaay yu woy jur yu des bokk na ci li nga xam ne sabab na ko walla responsabilité bi ñu war a jël ci ñoom dañ koo jëlut woykat ba ne woon anqizuhu fa rubbama kaana fihi muslihun aw muxaamirun laa yubali wax ne nañ xettali ndaw xale buñ leen bàyyi ñuy wër nag ku nekk jël responsabilité ci ñoom ndax xamuñ lan la ñu doon bu ëllëgee maanaam ku nekk day feeñ ci ñoom bu ëllëgee loolu ñàkk taxaw ci bind bi ñuy fas yéene jàng bokk na ci li ko waral kon tey dars bi ñuy jël insha allah la comme ni ko mbokk mi waxee léegi mi ngi aju ci an nafaqatu mafhumuha wa ahkaamuha kon day mel ne daf ñoo tënk ci ñaar benn bi mooy dañoo war a xamle lan mooy an nafaqa ba noppi ba cee dugg ñëw nag fàttaliku ak yéen lenn ci li nga xam ne ay àtte yu aju ci biir tomb boobu insha allahu taala an nafaqa buñ koy xamle borom xoo xam ne dañuy faral di aadawoo bu ñu xamle baat xamle ñaari maana yëpp li ñu tuddee almaana lugawi almaana istilaahi wala nga wax almaana shar'i la ñuy wax ndax ci fiq lañ nekk an nafaqa ci luxa day firi ci luxa day firi bi maana lu jeex nafaqa bi maana faniya te boo ne anfaqtuhu bi maana afnaytuhu am na ñu wax ne loolee tekk ci luxa am ñu ne déedéet mi ngi jóge ci baatu an nafaaq gi firi arrawaaj arrawaaj mooy loo xam ne daa yomb comme dañuy wax nafaqati silaatu ida kasura ruwaaduha marchandise bu bare ñu koy jënd si dañaan daa jar am ñu ne ci lu jóge ala kulli xaal baat bi masdar la wala ismu masdar la an nafaqa boo xam ne ñu ngi koy jamoo nafaqaat di ko jamoo nifaq mu mel ne baatu ak samaratu bi nga xam ne dañ koy jamoo samaraat di ko jamoo ba tey ci simaar dañoo niroo ñoom ñaar ala kulli xaal euh, maanaa yooyu itteeluñu ci barab bi ñu nekk maanaam ci tomb bi ñu war a fàttaliku li ñu itteel mooy li muy firi ci sariya suñ ko waxee lan lay firi ci diine lan lañ ci jublu suñ ko gisee ci fiq wala ñu gis ci xadis lan lañ ci jublu loolu moo ñu itteel tey insha allah taala ñu bari nag xamle nañ ko ibnu arafa indi na ci xamle bu am solo ak ñeneen ñu baree bari mën nañ ca tànn ñaari xamle rek yoo xam ne benn lañ booy xool daanaka ñoo bokk lu ñu wax ixraaju shaxsi ma lan yunfiqu bihi ala man tajibu alayhi nafaqatuhu kon an nafaqa mooy nit ki alal ji ngay génne ngir mu jëm ci ki nga xam ne yaa ko war a jox dund am na ku ko xamle noonu am keneen ku ko xamle kifaayatu man yamunuhu bil maaruf xuutan wa maskanan wa tawaabian mooy képp koo xam ne daa gàllu ci sa loos nga fexe ba doy ko ci wàllu dundam ak ci wàllu dëkkuwaayam ak ci wàllu la ca aju yaa nga xam ne dañ caa topp eh, an nafaqa nag ay xeet la yoo xam ne ñun benn bi lañuy ñuy jël comme ab dars fàttaliku ko ak yéen ndax am na lu ñu tudde an nafaqaatul amma loolu état yi moom la ñuy def lu mel ne nguur gu génne ab budget daal tabax ay projet yu mag yoo xam ne bu nappee day nekk ay mumtalakaat amma ñëpp koy bokk loolu an nafaqaatul amma lay dugg wala kilifa gu kilifa gu mag gu génne ab som bu mag defar loo xam ne ñëpp koy jariñoo waaye loolu bokkut ak li ñuy waxtaan tey li ñuy waxtaan tey dafa gën a jege ñun mooy nafaxaatul nafaqaatul xaasa loolu dafa séddli ko ñaari xaaj bi nga xam ne dafa aju ci jëmmi nit ki ci boppam nga xam ne da ko war di génne mu jëm ci sa jëm bopp ak war a génn bàyyi ko ci yow jëm ci ñi nga war a yor ñaari xaaj yi nag benn bi la ñuy waxtaane incha allah ndax bi jëm si jëmmi nit ki daanaka ajo wut di ci fàttaliku ndax ñaari nit ki la aju ci jëm boppam du ko fàtte lu ëpp ci li muy fàtte wala mu koy réere mooy la war a génn ci moom jëm ci ñeneen ci biir an nafaxa nag muy joxe wala dépassé am na ñaari atte am na boo xam ne waajiba la bu war am boo xam ne it buñ sopp la loolu ci diine lañ koy jàngale an nafaxaatul waajiba an nafaxaat al manduuba bu dee ñu ngi sopp tamit duñ ci xóotal tey incha allah tey dañuy gën a taxaw rek ci yi nga xam ne moo war ngir ñu fàttaliku ko bu baax a baax yi ñu sopp bokk na ci saraxa yi as-sadaqaat day bokk tuddu dugg ci an-nafaqaatul manduuba al-hadaaya lu mel ne léeg-léeg joxe ñu joxe ci suñ biir gis nga xadis bi ci rotoon tahaado tahaabu lu mel ne alhibaat maye dara ngir jëmmi suñu borom ak yu ko nuru yooyu day dugg ci al infaq fi sabilillah wala an nafaqatul manduba waaye bi ñuy waxtaane tey dars bi mi ngi aju ci an nafaqa al waajiba mooy bi nga xam ne moom la sariya gàll ci loosu jullit bi nga xam ne da ko gàll ci kawam mu am ci ñu jëm lan mooy waral nit ki mu war a joxe dépasse maanaam mu war a joxe dund mu jëm ci ñenn ñett ñoo koy waral comme ni ko borom xam-xam yi ñett ñooy waral an nafaqa war a bàyyi ko ci yow jëm ci ñenn danañ ñëw ci ñett yooyu par benn insha allahu taala ñett yooyu bokk na ci an nikaax mooy sëy loolu benn la ci sabab yi bi ki des mooy alxaraaba mooy ak bokk bokku jegeñaale bi ki des mooy li ñuy wax al milk fuqaha yëpp ñett yooyu la indi pour wax ne mooy asbaab yi waral nga war a joxe maanaam infaq mu jëm ci ñenn maanaam dalika mooy bu fekkee da nga takk diw mu nekk sa soxna xamal ne bis naka keroog dundam dalay war nafaxaam dalay war bin nikaax lu ko waral ñu ne nikaax bi bu yàlla dogalee nga am njaboot sa diggante ak moom xale yi seen dund da lay war bil xaraaba ndax jege ñaale gi su yàlla dogalee am ñu ne ci kër gi ñoo xam dañu fee joxe wala ñu dénkaane leen fi yu mel noonu nga war leen jox nafaxa day war loolu mooy remplace bil milk ndax bil milk xam ngeen ne ni àdduna si avancé léegi daanaka amatul waaye yooyu ñoo ko wutu danañ ci ñëw incha allah pour gën koo leeral mu gën a tënku Eh, ci ñeenti bunt rek lañ fas yéenee jàngat ak yéen tong bi wala bind bi xaaj ko ci ñeenti xaaj benn bi mooy danañ wax ban tegtal mooy wane ne joxe dund daa war ci jullit te ab jullit bu ñu la lii daa war ci yow duñ ko wax rek teg ko ci xel ndax ci fiq lañ nekk ci sariya lañ nekk nanguwut wax rek dem wala wax teg ko ci xel waaye bu ñu waxee dañ la wax lan moo tax ñu wax la ne lii waajib la ci yow lu war la loolu moom lañu njëkk a wax mooy al asl li ñu tuddee al asl fi masruiyatihi insha allah taala loolu mooy tomb bu njëkk bi liy wane ne sariya dafa gàll ci loosu jullit bi mu war di génne ci poosam dara mu am ci ñum jëm danañ leeral loolu ci ñi muy jëm ñan lay doon insha allah taala cam nekk waajib mu nekk lu war ca wut lu war nag mooy loo xam ne soo ko defee am ci tuyaaba waaye boo ko defut bàkkaar dala ciy war kon mooy mënoo ko ñàkk def àtte mooy al wujub dana ñëw ci ay atte yoo xam ne ay atte yu atte yu tàqalikoo lay doon yoo xam ne day jëm ci jëmmi joxe boobu ci boppam ak ci fan la jëm insha allah la ñëwaat ci soxna yi nga xam ne dañ leen a bàyyi ndax loolu tamit day sew sa yu am yu am solo yu ci am ñu bari di ko xaw a sàgg na rawatina ci jamono yi nekk léegi danañ ñëw ci aju ci ñoom ak lu aju ci njaboot yi muy xale yi nga xam ne dañuy bàyyi ko ci diggante ñaari way dencante yi tëje ko nag ci teggin yi nga xam ne moom lañ ko war a jaarale ñu koy joxe insha allahu taala bokk yi ñu bàyyi xel ne islaam dafa nekk diine boo xam ne dafa nekk soññ ni ñi ngir ñu mottalante seen biir day soññ nit ñu ngir kenn ku nekk am taxawaay islaam bëggut nit koo xam ne nii amoo benn taxawaay booy def walla amoo njariñ ci kaw suuf déedéet day bëgg nga bañ a tàyyal day bëgg nga bañ a bàyyindiku moo tax suñu borom ne alxuraanu karim gis nga muy misaal ñaar ñooñu ki nga xam ne ay na may wajjihu la yaati bi xayr hal yastawi huwa wa man yamuru bil adl duñ yem ñoom ñaar kon ki am taxawaay am njariñ bokkut ki nga xam ne moom amul lenn lu muy lu muy jariñ société bi wala loo xam ne mi ngi ko am ci taxawaay kon nit ab jullit dafa war am taxawaay bu mu am boo xam ne su fa nekkatu ñoo xam ne moom moo daa def lii su fa nekkatul loolu mooy asar benn waykat ne woon na alal fata asaaruhu tadullu bi qadriha xaru aw yu jallu nit ki da ngay fexe ba say jeexit gën a bari loolu nag am taxawaay moo koy waral taxawaay yooyu nag bokk na ci li koy gën a mën a jox nit mooy nga nekk munfiq mooy ngay joxe ngay génn ci sa poos di joxe ngir jëm yàlla loolu bokk na ci li ëpp nit am jeexit ginnaawam ci la bokk xam ngeen ne bokkul ci tedd nga nga jariñu ca kenn jariñu ci yow ci yow ci yow déedéet loolu gënut benn waxkat waxoon na ko laysa min asharaf an tastafida walam yastafid minka gayruka nga xam yaay jariñu rek waaye keneen ku yow du jariñu ci yow déedéet loolu gënut ni ki daa war leen koo xam ne nii da ngay jariñu waaye tamit nanga nga fexe ba ñeneen jariñu ngir yow bokku ci tedd nga it ngay jëfandiku rek te kenn jëfandiku ngir yow loolu te bokkul ci tedd nga waaye bokku ci tedd nga yit maanaam yaa rek yaa noppalu nit ñi di sonn déedéet waaye li gën mooy nit ñi di noppalu ngir sa coono loolu tamit taxawaay moo koy waral ñu bàyyi ko xel bu baax a baax moo tax nga gis xadis boobu di wax ne même boo doon jëmbat garab sax dégg ne bis penci wala mi ngi tàmbali di am léegi bu ko bàyyi waññe ne kon bul ne rek njëriñ li mooy li ma teewe rek waaye bàyyil xel njariñ loo xam ne doonte fekke ko sax mu nekk sa jeexi sa ginnaaw génne alal joxe bokk na ci li ëpp solo ci luy tax nga am taxawaay ci kaw suuf ci la bokk loolu moo tax suñu borom subhanahu wa taala wax ñu benn aaya bu ma ta bàyyi xel bu baax yaa ayyuha allazina amanu anfiqu min tayibaati ma kasabtum wa mimma axrajna lakum min al ard anfiqu aaya boo xam ne aaya bu yéeme la bu ma ta taxaw bu baax a baax ndax ndigal la tàmbalee xam nga ndigalu suñu borom euh, gëdd bi am am fiqu day wañe ne kon kenn sañ ca téye al imsaak da ko tere mooy am di téye gënut kon tedd nga dëgg-dëgg mooy ngay génne di joxe waaye min tayyibaati maa kasabtu di waññe ne ginnaaw dañ laa diggal nga joxe kon faw nga wut dañ ci dégg ne kon liggéey lu am solo la ndax dane min tayyibaati maa kasabtu kon boo fàggu wut naka ngay amee loo joxe ngir mën a génne dara munta nekk kon faw tamit ñu bañ a toog ñu bañ a bàyyi ndiku ku nekk xool li nga mën a def pour dara génn ci nga def ko ngir nga mën a jëfandikoo jaam yàlla gu réy googu muy infaq boobu wa mimma axrajna lakum min al ard mbay mi kon foofu mboolem lu nit ki mën a liggéey ci kaw suuf rek ba am am dara al kasb la ndax dañuy wax ne maa laa yatimul waajibu illa bihi foo huwa waajib infaq bu nekkee lu war rek kon wut ngir mën ko def tamit day nekk lu war kon wuti alal day nekk waajib lu mënta ñàkk waaye tamit ngir nga mën a jëfandikoo jaamu yàlla gu mag googu loolu tamit farata la ñu bàyyi ko xel bu baax a baax bu ko defee kon aay bi day mel ne dafa tënk dafa gën a tarkis ci ñaari mbir muy al kasb wal infaq mooy nañu wut waaye bu ñu wutee buñ ñu ko téye nañ génn joxe ngir jëmbi suñu borom subhanahu wa taala kon joxe gi ndigalu suñu borom subhanahu wa taala la boo xam ne nii lu baax la ki koy def day wàññe ne xol bu am yërmande la am day wàññe ne ku tedd la day wañe ne ku am sentiment la maanaam ku am yëg-yëg la waaye day wàññe ne kuy sant suñu borom la subhanahu wa taala kon loolu tamit bokk yi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te gën koo jëmmal ki suñu jëm ko defee kon ixraaju nafaqa te mooy génne dund wala dépense joxe ko day dugg ci al infaq boobu ñu waxoon léegi day mel ab xaaj la ci kon jullit bi bàyyi xel ne kenn bindu la rek ngir nga wéeru déedéet nga war a gëm ne dama war a doon ku ñu wéeru nga war a doon ku ñu wéeru war a doon koo xam ne danga danga war a am loo war a yor ñëpp am responsabilité bu ñu war a taxaw loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax bu doon farata su ko defee nag jullit mën naa laaj ne lan mooy wane ne farata la ci man ma génne joxe ban li wane ne at nafaqa dana nekk waajiba ci man ndax ab jullit kenn du ko wax ne ko rek lii farata la ci waxoo ko fu ko suñ borom subhanahu wax wala fukk ko yéen saa sallam leeral ci xadis danañu indil ay adilla ay tegtal yu wér yoo xam ne danga nga ci mën a xame ne joxe génn ki sa alal joxe ci ñi nga ko war a jox loolu warteef la wa ala al mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil maaruf loolu aaya quraaniya bu màgg la boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala ngi ki wax ne ki nga xam ne am na soxna maanaam waajuru xale bi na xam ne dundub soxna yi ñu waxe soxna yi doom yi ci la ñuy dugaale ak seen li ñuy sol yow la war loolu aaya bu leer nangi la wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil maaruf kon loolu day wàññe ne benn jullit kon sëñ ca toog téye loxoom ndax yàlla moo la digal loolu beneen bi li yunfiq zo saati min saati wa man qudira alayhi rizqu fal yunfiq mimma ataahu la li yunfiq xam ngeen bu baax a baax aaya bi li ci nekk ci digle li yunfiq ndigalul yàlla suñu borom di wax ak góor gi moo war a génn joxe bu defee nag foofu kenn ku nekk ak ko mëne ki nga xam ne wërsëgam yaatu na na joxe kem ni wërsëgam yaatoo ki nga xam ne daal digg doomu tamit mu joxe kem ni ko mane ala kulli xaal aaya boobu day wañan tamit nit ki sëñ ci xëyit banque loxoom déedéet askinohunna min xaysu sakantum min wujudikum foofu tamit di teg tegtale ne kon a nafaqatu wax nañ ko wal kiswatu wal maskan wala was sukna ñett yooyu daa war ci bépp jullit nga war ko warlul ñi nga ko war a warlul dana ñëw ci ñoom léegi insha allah taala mu jox leen dund jox leen lu ñu sol ak fuñ dëkk askinohunna ndigalu suñu borom subhanahu wa taala dëkkal leen leen ñoom kon loolu tamit wërteef la ci yow nga taxaw ci bu baax loolu lépp ku na xam ne ne ci infaq ci lay génn maanaam lu ñuy génne ci poos la di ko joxe am na beneen aaya fa imsaakum bi maaruf aw tasrihum bi ihsaan imsaakum bi maaruf ñu bari di ko firee mooy boo ko téyee na ko téye te yor ko mooy lawaasim yi mooy warteef yi ñu wax na ci taxaw su la wóoroon doo ko man nga bàyyi ko mu dem aw tasrihum bi ihsaan waaye nag bu ko téyee ba noppi te ñett yi ñuy wax doo ci taxaw mooy dundam ak colam ak fi muy dëkk kon loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu baax muy aaya bu leer nañ loolu dañ ci dégg ne moom la alayhi salaatu wasalaam waxoon man istataa minkumul baat nit ki kon buy wut soxna na ko leer ne ñett yooyu mën na cee góorgóorlu kon waaye jur sax sañ nañ ku ñëw di wut si ñu xool ba xam ndax ñett yooyu mën na cee góorgóorlu wala déet su leen wóoree ne kooku du ko man loolu war nañ cee xoolaat ñu tey ci bu baax a baax yonent bi sallallahu alayhi nee na ci benn xadis doy na sëkk bàkkaar bàkkaar gëntëre yi nga war a joxe dund bañ kafa bil mari isman ay yudayaa may yaquut ci benn xadis xadis yi ñuy indil yépp dañ ko jële ci al kutub al yi nga xam ne duñ ko mën a delloo ay xadis yu dëgër yoo xam ne jullit bi du mën lu dul jëfandikoo ko ak jëfe la ci nekk beneen xadis muy xadis sawbaan sawbaan xam ngeen ko baax a baax ndax bokkoon na ci ñu jegewoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam lool nekkoon am na xadis boo xam ne daf wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee ne alal ji gën mooy alal joo xam ne dañ koo jël jox ko def ko dépasse kër afdalu dinaar dinaaru yunfiquhu yunfiquhu rajulu ala iyaali kon loolu defe naa jullit bu ko dégg da nga xam ne kon eh, joxe gi lu war la ci sa diine moo la ko wax xadiisu abi hurayra radiallahu anhu mu ne yén saa sallam neenee dafa am bis mu tudd ñeent daan alal joo joxe ci yoonu yàlla ak alal joo joxe ci goreel jaam ak alal joo sarax ab miskit ak alal joo xam ne danga nga koo joxe dépasse sa kër daan bi ci gën a màgg ci ñeent yooyu mooy alal ji nga joxe dépasse sa kër moom la ko tëjee azamuha ajran alladi anfaqtahu ala ahlik loolu tamit dalil la wala tegtal la buy wane ne génne dund warteef la Saad ibn Abi Waqaas nekk saxaabi bu màgg buñ xam xadis bu gudd boobu nga xam ne bokk na ci la ko alayhi salaatu wasalaam wax ne woon na ko boo génnee nafaqa ci sa kër yàlla dala ciy bindal tuyaaba ba ci li sa soxna jëfandikoo xatta ma tajal fii fimraatika kon loolu tamit dëgër na ci texte yi ñu leen wax léegi am na benn saxaab boo xam ne dafa bëggoon a am alal ju mu a joxe yéen saa la ne ko inni ara an tajalaha fil aqrabin ba tey day wane ne kon balaa joxe bi di génn di tasaaroo na jaar fi mu war a jaar ba noppi te mooy sa waa na beneen xadis boo xam ne siiw na ñu ñëpp xam nañ ko muy wane ne bis bu yàlla sàkk yéen saa sallam mooy wax bis bu set amul benn bis boo xam ne nee ne nit ñi dañ ciy xëy ndar ne ñaari malaaka dañuy wàcc di ñaan benn malaaka mi day mel ne danaan yow suñu borom ki xëy joxe dund yàlla na ko jox lu wuutu lim joxe beneen malaaka mi danaan ki xëy téye loxoom yàlla na nga sànk lim yor maa min yowmin yusbihu libaadu fiihi illa malakaani yanzilaani fa yaqulu ahaduhuma allahuma ati munfiqan xalafa wa yaqulu al axar allahuma ati mumsikan talafa wa ma anfaqtum min cheyin fa huwa yuxlifu wa huwa xayru raziqin ay boobu gis ngeen ko bu baax waaye xadiisu abi masud al ansaari al badri nga xam ne nee ne alayhi salaatu wasalaam nee ne ida anfaqa arrajulu wala ida anfaqa almuslimu nafaqatan ala ahli wa huwa yaxtasibuha kaana lahu sadaqa kon loolu ay ahadis la yoo xam ne dëgër na di wane ne maanaam joxe dund warteef la waaye sax tuyaaba bu rëy da cee gàllu am na beneen xadis boo xam ne yun saasima daf ci wax ne kii fexe ba yor ay araamil mooy ay jigéen ñoo xam ne dañoo ñàkk ay borom kër wala ay miskin nga yor leen di leen jox dund nee ne kooku maanaam ña jihaat ci yoonu yàlla ak ñi yendoo ñi yendoo koor di fanaane nafila ëppuñ ko tuyaaba foofu kon dañ ciy gis euh, dañ fiy seetlu njariñu ñi nga xam ne dañu ubbi seeni kër di fat ñi nga xam ne dañoo amut wala ñi nga xam ne dañoo mënut ngir di leen jox dund loolu lu rëy la boo xam ne lu rafet la ci islaam loolu tamit nañ xam ne yool bu rëy moo ci gàllu boo xam ne suñu borom subhanahu wa wax na ko am na beneen xadis boo xam ne dafa wax ne al yadul ulya xayru min al yadi sufla ñu bari di ko firee mooy loxo bi nga xam ne day xëy yëkkati loxoom joxe moo gën loxo bi nga xam ne day xëy daal suufee maanaam du tàllal joxe dara am na ñu koy firee noonu daa cee teg wabda bi man taawul ci xadis bi bokk nag commencé nag ci ñi nga xam ne ñooy njaboot gi nga jox leen yooyu yëpp kon bokk yi ay tegtal la yuy wane ne ci alxuraanul karim ak xadis di wane ne kon ab jullit mënut lu jëfandikoo loolu ci dundam am na fu sëriñ bi di waxee radiallahu anhu ati bihi rabbaka za infaaqi minhu allazi ihtada bila nifaaq boo amee alal ba wut ko topp ki sa borom topp sa boroom ki sa alal nag lu ci gën a rëy nga génn ci li war te mooy dund bi loolu gisuñ ko ñu bàyyi ko xel bu baax am amma tasadduqu ma al infaaqi fa jamaa al xayraati bi ittifaaqi eh, moom tamit gis nga li gis sëriñ bi wax loolu foofu muy génne di joxe dañ nga wax ne mbooleem yiw yëpp daanaka dugg nañ ci biir am na ku ñuy wax Muawiyatu al-Xuseyri yi am na benn bis mu ne dama laaj ci Yonent bi sallallahu ne ko lan lañu war a defal suñuy soxna lan mooy àq yi suñuy soxna am ci ñun Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko an tut'imaha iza ta'imta wa an taksuwaha isak tasayta mooy bul lekk bàyyi ko bul xotti bàyyi ko loolu tamit day tegtale ne maanaam eh, génne dund ak koddaay farata la ci bépp jullit ku ñu wax ibnu rusd faqih bu mag la mu ne borom xoo xam yépp dëppoo nañ loolu day wane ijmaa bi ci lañ nekk nii ijmaahul muslimin wala al ulama ci ne ixraaju nafaqa waajib la mooy joxe dund lu war la moom nee ittafaqu ala anna min xuquqi zawjati ala zawj an nafaqatu wal kiswa li qawlihi taala wa al mawludi lahu risquhunna kon loolu xam yëpp ci dëppoo am kenn ku ci werante ibnu xajar al asqalaani ci bi muy sara saxiixul buxaari mu wax ne in aqada al ijmaa ala al wujub kon ijmaa la ijmaul muslimin boo xam ne kàngam yëpp wax nañ ko ci ne waajib la al wujub xam nañ li muy tekki dëgg waxoon nañ ko léegi mooy lu mënut ñàkk loo xam ne jullit bi munu koo ñàkk def mënu koo ñàkk a jëfe fi ñu wute nag comme ni ko Ibnu Hajar waxee mooy taqdir bi ni muy toll danañ ci ñëw incha ci kanam mu ne am na ci borom xam-xam ñoo xam ne dañuy wax ne bil kifaaya ci ñooñu li wax moo gën a jubóog jamono yépp mooy lu doy rek dañu wute ci nafaxa mooy dund nan lay toll diir bi am na ñu koy natt ñoo xam dañ koy natt ci ay daat ay mudd am ñu ne déedéet kenn mënu koo xayma dañuy xool rek la doy kër googa wala la doy ña nekk foofa ca boobu moom la jumhur bi wax mooy alkifaaya ca loolu ahadis yi ci rot sax maanaam alkifaaya lay la mooy loo xam ne rek dana doy dana mën mat kon nas yi wala texte yi ñu indi day wane ne euh, joxe dund wala joxe fere yi nga war a joxe nekk na lu war loo xam ne ab jullit waru koo daw ab jullit mënu koo ñàkk jëfe ñu fi ab laaj day taxaw fii mooy kon maahiya nafaqa ginnaaw bu ñu xamee ne lu war la ab julli mënu ko ñàkk def an nafaqa mooy lan kii ko bëgg a joxe lan la war a génne foofu tamit dañaan tontu bi mooy ñetti dafa seetlu ko ñaari xaaj daa am nañu ci tuddee ay asasiyaat ak ay kamaliyaat daa am yoo xam ne munta ñàkk nga xam ne moom mooy farata bi mooy at taam al kiswa as sakan loolu ci la ayaat rot bu ñu waxee kon nga génn ko mooy ñett yooyu na ko warlul sa kër warlu ko ñi ngi ko war a warloo mooy seen dund seen col ak fi ñu dëkk am na lu ñu tudde ay kamaliyaat yoo xam ne su ci ma mënee am mooy gën mooy lu ñu fajoo suñ bëggee woote eh, wàllu communiqué wàllu courant wàllu déplacement xeeti fere yi dem ak dikk yu mel noonu yooyu ay mbir la yoo xam ne mën na cee bokk waaye du ci lu munta ñàkk ba ci alxidma mooy wutal ko sax ñu koy liggéeyal loolu dañu wax ne day topp li ñu tëddee al urfu said al urfu mooy jamono bi dëkk bu nekk la fa am rek lañ jàpp ne lii moo baax waaye lañ jàpp ne nii la war a mel ñëpp tënku ci loole rek moom lay méngoon waaye tamit kem ni nga ko mënee moo tax ci alxuraanul karim aaya yi ci wax yépp day wax bil maaruf mooy ni nga ko mënee sa kàttan am ci kan nga ko war a jox wala ci ñen la war a jëm ñi ci jiitu mooy azawjaat soxna yi ndax ay aayaat yi ci ñoom la ñoom la gën a tudd wa alal mawludi lahu rizquhunna azawjaat alwalidaat soxna yi kon bépp góor na xam ne warteef la ci moom mu yor dundub ay soxnaam donte soxna sa daa am alal donte soxna sa day liggéey am alal ju du jeex bul sukkandiku ci moom sa diine lim la sant mooy dundam yow la war kon bul baasewu ci moom loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu baax e, al awlaat muy njaboot yi doom yi bu ñu waxee doom yi tamit seen dund dafa topp daanaka dundu seeni waajur foofu it am na lu ci fuqaha wax muy doom yi diine dafa wax ne waajur moo war a yor dundub doomam li ko dale ci bu dee góora a bi juddoo bam baaleex ba mu majeur ba mu nekk mu kàllaf foofu la sariya yemale nag wujub bi su ko neexee mu téye loxo warte bi foofu la yem kon bépp góor xamal ne soo xasee nekk mu kàllaf nekk baalix sa waajur mu yor la waratu ko ci sariya waratu ko teewul mën naa continuer ngir ngir rafetalam waaye boo ko neexee moo ne la fii laa yem même bu la ko waxul sax yow sa jëm bopp yaa war a jéem a taxaw nag sa jomi bopp sukkandiku sa bopp waaye nit du tàmm rek baase wu kon ne dem déedéet kon la ko sariya rëdde bu dee góor foofu ne bu dee jigéen a moo ko war a yor ba keroog muy am borom kër ba borom këram wéeteeg moom mu yem fa dañuy wax fi wujjo bi yam maanaam war gi foofu la yem soo baa borom këram moo continuer daat ko yor comme ni ñu ko waxee ci azawjaat léegi am na lu fuqaha yi wax ñenn ci mu mutaaxiroon yi wax ne bu dee doom ci góor nag yoo xam ne dem na ba nekk mukallaf baaleex waaye dafa nekk ci njàng masan day continuer njàngam nga xam ne tàmbalee tàmbaleegul liggéey ñu ne kooku waaye juróom kon man dafa war a continuer ba tey fiq mooy wax dafa war di ko yor waaye ki sart njàng mi bu defee ixtibaar dana jàll mu mooy mu doon koo xam ne kuy jàng kuy jàng la day wane maanaam njàng mi fonk na ko fekkate ne gis ne njàng mi du lu mu fonk waajur yi dañu ne waru ko mu topp mu toppatoo dundam wala ay fer yu aju ci moom loolu tamit ab leeral la bu ci mat a bàyyi xel bu baax nañ as zawjaat soxna yi al awlaad bi ki topp mooy al waalidaan ñaari waajur bokk na ci ñi la war nga dundal leen wala nga yor seen dund ñoom waaye nag fiq day wax na fekkee dañoo ñàkk benn waykat ne woon na wal abawaani al mu'siraani yunfiqu alayhima al ibnu bi yusrin yurfiqu kon waajur yi bu ñàkkee amuñ doole it xamal na yow doom bi yaa leen war a dundal mu desaat ba tey ñi ne ci kër gi te joxe leen fi ñooñ ñooy wutu bil milki gi ñu waxoon ñi dañoo xam fee joxe ay ndénkaan ñi nga xam fi indi ñu fi nekk moo xam anam guñ fi ñëwee rek ñooñu dañuy dugg ci bil milk ñoom tamit yaa leen war a jox dund moo tax borom muxtasar ne woon na innama tajibu nafaqatu raqiqihi wa dabbatihi in lam yakun mar'a wa ala almuusiri nafaqatu alwalidayn almu'sirayn wa xaadimihima dem ba kanam mu ne wa nafaqatu alwaladi zakar xatta yabluga aaqilan qaadiran ala alkasb wal unsa xatta yadxula biha zawjuha loolu mooy tënk li ñu waxoon léegi rek ci li fuqaha yi wax ci wàllu ñi nga war a jox dund muy soxna yi waay jur yi ak doom yi mu des nag leneen muy bàyyi may ci kër gi ñu bari duñ bàyyi xel ne nafaqa ñoom ci lañ bokk bàyyi may loolu fiq da ko bàyyi xel bu baax a baax ki yor fas wala sareet yeew ko fekkee da nga koy yeew xam boo ko yeew dañuy wax bu fekkee sart bi maanaam bàyyiwoo ko muy dem di fori nga xam ne da nga yeew ci kër gi daanaka duñ soreek nit ñi nga yor ci kër gi kon ñooñu bàyyi xel seen nafaqa yeew la ko islaam gàll dee leen ko jox ñoom tamit kon nag bu yor sa sareet rek liggéey ba ngoon nga def sa foos fàtte ki nga xam ne moo doon daw na nga ko bàyyi xel baax ci li ñuy wax ni diine la boo xam ne moo la ko tënk soo kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax loolu ñu tuddee nafaqatu dawaab ki soxna yi tamit am na ay leeral yu bari yu ñu ci war a leeral insha allah ndax waxoon nañ ne góor moo war a jox dund soxnaam loolu moom day continuer waaye nag am na xaalaat ay melokaan yoo xam ne bu amee joxe boobu day dagg bokk na ci ni ko fuqaay waxee mooy bi maw mawti ahadihima kenn ci ñaar bi ci kenn faatoo fekk góor gi daa faatu dund bi wàcc na ko bu soxna si faatoo génn àdduna yem na fa waaye it am na yeneen yoo xam ne danañ waral loola dagg mooy fekkee soxna si daa def li ñuy wax an nusuus te mooy maanaam mu jékki-jékki tere ko boppam su ko teree boppam donte une semaine la ko def wala ñaari semaine góor gi diine danañ ko dépasse da la war ci moom fekk da ko tere boppam wala mu fay dem génn ci amul ndigal kooku it bu ko defee ay fan wala weer diir boobu bépp dañ naan tasqutu anhu an nafaqa bu fekkee dañ ko fase al mutallaqaat suñ ko fasee xam ngeen ne fase ay xeet la am na ñu tuddee fase boo xam ne mën na koo faylawaat mooy fase boo xam ne nekkagut baa in nga xam ne ñaanut baat te fase boo lu man ñetti yoon yaa jékki-jékki fase ko rek li fekk idda ji jeexut yaa ko war a jox dund yow borom kër bi loolu lu bari ci nit ñi duñ ko bàyyi xel da mel ne soxna si moom bis bi ñu ko fasee rek day génn dem seen kër yow nga génn ci yow fekk diirub idda bi yow mi borom kër bi ko yoroon dundam yow la war ak dëkkuwaayam génn sax waru ko woon def donte nag xëy na nit ñi seen aadama dañuy daal dem ci sens waaye laa tuxrijoohunna min buyootihinna alxuraanul karim la ca mi ngi wax ñi nga xam ne dañu leen a fase dañu leen war a bàyyi ñu toog ci kër yi kon buñ toogee la muy tekk mooy kon yoraale leen seen dund ak seen lépp loolu tamit lu war di bàyyi xel bu baax kon bu ñu ko fasee dund bi day continuer ba keroog idda bi jeex bu fekkee rajaay la mooy fas la boo xam ne maanaam nekkul bàyyi bu fekkee fase mu dog la lu mel ne jigéen gi moo ñaan baat kooku dañ ñaan bu fekkee daa ëmb ba tey góor gi day continuer dund bi ba keroog idda bi jeex bu fekkee ëmbul nag moom dund ba fa lay yam loolu benn xadis bu wér da koo dëggal ku ñuy wax fatimatu bintu xays jamono yém saa salaam dafa am benn borom këram bu ko bàyyi woon mu nekkoon baa in mu taxawoon nag bëgg nag nafaxa bi di continuer yén saa sallam ne ko wallahi malak nafaxa illa an takuni xaamilan kon loolu ci la fuqaha yi jëlee ne kon al mutallaqa talaqan baa inan kooku bu fekkee ëmb na lay am dund waaye bu ëmbul dund du ko ñaan bu fekkee borom bi daa faatu daa génn àdduna foofu itam leeral yu am solo da ci am mooy waxoon nañ léegi ne faatu bu xasee am moom dund yem na foofu bu ma waxee dund bi maa ngi jublu mooy joxe dépasse yi foofu la yem kon lépp lu ñu génne war dañ ko war a jële ci cër yi maanaam zalika mooy nekk bu xasee faatu rek soxna yi sañatuñoo jël alal ji fi bàyyi di ko di ko def dépasse déedéet dañ ko war a miraas wala ñu ci jël avant ñuy miraas dañ ko war a tegg ci cëru kenn ku nekk duñ miraasee ba noppi parce que nit ki bu xasee génn àdduna rek joxe dépasse waratu ko muy continuer déedéet lam bàyyi lépp tarika lañ koy tudde mooy ndono kon suñ lu ñu ci jël rek dañ ko war a xam natt ko bu nappee ba miraas ba nag ku ne sa cër nga fay ci lu toll noonu wala ñu lijjantee ko noonu waaye du nekk ci loo xam ne moom day continuer di ko joxe kañ la war a tàmbalee joxe dépasse gi am ndax nit ki bu ko mayee rek la war a tàmbalee joxe wala bu wéeteek moom foofu it borom xam-xam bi dañ cee wuute am ñu ne bu xaq di amee rek pas-pas bi rek na tàmbali joxe am ñu ne déedéet ban da tamkiin ma ginnaaw boo ne wéet am na boobu nag moo gën a tasaaroo moo a dëgër mooy kon li fekk wéet amagut maanaam waratul waragut waragut nag tekkiwul ne maanaam doo ko def waaye fi muy waree mooy bu wéet xase ba am nga war a tàmbalee joxe dund ci soxna si foofu it am lu ñu ci war a leeral lu am solo mooy bu dee boronko bi daal tukki ñu may ko nga xam ne ñàkk wéet ga doonut ci soxna si léegi ci yow mi tukki la kooku xamal ne keroog bi ñu ko fasee la dund bi war a tàmbali insha allahu taala beneen laaj mooy soxla soo ne borom këram da koy jox lu matut te xam ne borom këram am na lu ko mën a matal ndax sañ naa jël mottali ko te ko yëg wala déet loolu tamit dañ ciy wax ne tontu li ci fiq di wax mooy maanaam dagan na bu baax a baax fekkee leer na ko ne borom kër bi lim ko jox matut dépasse dépasse kër gi te lim denc ëpp na ko sañ naa jël lu ko mottali ndax loolu ci benn xadis bu wér lañ ci sukkandiku xadis boo xam ne mi ngi ci saxiwul Buxaari yi soxna si daa ñu wax yu saa ne ko sama borom dafa xaw a nay noonu la ko waxee sax dafa xaw a bëggee lim may jox doyut maag sama njaboot ndax sa ñamaay jël ca du ko yëg mu ne ko waaw xus yi maa yëg fii ki wa waladiki bil maaruf ne ko jëlal loo xam ne dana doy loolu sax xëy na ci lañ jëlee alkifaaya ci ne kon ndeke dund mooy kenn du ko tënk ci som sàngam waaye dañaan rek loo xam ne dana doy sëkk kon dagan na maanaam mu jël ko foofu ibnu xajar mi ngi def benn saraa bu am solo di wax ne ginnaaw mottali ko rek dana dagan nga jël ko te yëgu ko waxuma la ak nag kon bu doon daa bañ kon ku war a joxe te bañ ko moom kooku soxna si sañ naa jël maanaam te du ko yëg ba tey dañuy wax ne an tas tasqutu bi mu duy zaman loolu mooy borom kër bi nga xam ne mu ngi koy joxe am semaine boo xam ne daf koo ñàkk amul dara walla liggéeyam moo yàqu wala weer diir boobu joxewut est-ce que bu amaatee da koy fay wala déet loolu tamit du ko fay soxna si suñu ko wax da koy fay xanaa leen mooy soxna si doon ko leb da ko doon leb waaye lurul loolu moom démb bi jàlloon te amutoon moo tax joxewut loolu du nekk loo xam ne da koy fay ndara ne mu doon loo xam ne bor bu fa taxaw la wala yu mel noonu beneen bi mooy ci at yi aju ci soxna yi ba tey koo xam ne dafa am ñetti soxna wala ñeent masalan waaye bokkuñ kër yu nekk bokkuñ ay kër ku ne daa am région boo nekk wala ku ne daa am dëkk boo nekk naka lay war a joxe nafaq foofu lu ñu njëkk wax may kooku na xam ne dépasse da ko war ci kër yëpp waaye nag bil adala la bi tasaawi parce que yamale bokkut ak maandu al adala bokkut ak bokkut ak nga yemale yamale du maandu mooy kenn ku nekk ak la jaadoo dem al kifaaya lañu la ñu indi ba léegi rek ki nga xam ne këram nga mu nekk juróom a nga fa wala fukk du tolloo ki nga xam ne këram ñett fa nekk wala ñaar la kon wuru ne mën naa jox ku ne cinquante mille rek par bis wala ku ne dix mille par bis yam foofu déedéet sooba loolu day nekk njuumte kon loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu baax ci wàllu génn bi am nay aadaab am nay teggin yoo xam ne war nañ ci sukkandiku bu baax a baax di ko bàyyi xel buñ koy joxe bokk na ci euh, teggin yi an niyatu wal ihtisaab ndax ak jaam yàlla gu rëy la nit ki buy génn ci poosam di joxe na ci yéene sàkku tuyaaba ndax la dafa rot ci xadis bi wa huwa yaxtasibuha buñ ko fàtt bépp jaam yàlla booy def nga yéene ci ak jaam yàlla loolu bokk na ki teggin yi ba tey at taajil mooy di ko gaaw a joxe loolu ci tegg ni la bokk bañ koo yeexee at taajil qabla al mutalaba ba lañ ko laaj ginnaaw loo war a joxe la nga fexe ba di ko teel a joxe tamit farata la teggi teggin la albashaasa mooy bu ko joxee ànd ak xol bu tàng wala ànd ak xarkanam bu ñukk waaye su ma nee ànd ak xarkanam guy bég tamit moo gën waaye bokk na ci it góor gi di xool ba xam ndax lim joxe méngoo na ak liñ indi ini muraqabatu ma ida kaana al mablag al muqaddam munasiban lil li taam loolu tamit farata la loolu moo tax nga gis suñ mag ñi ñoom dañ daan contrôler lu baax baax ñoom euh, fi ñu daan denc seen dund yi dañ daan dara nekk ci néeg yoo xam ne day jege fi ñu nekk fi ñu tibb njël yi nga xam ne daa wut rek fi ñu nekk koy natt dañ koy xam waaye bu ñam yu noppee tamit ñoo ñëw daa koy séddale ñoo ñëw xool bu baax loolu njur mooy xool ba xam ndax lañ la joxoon méngoo nag li fi nekk wala déet loolu ma ngi seen aada la defe naa loolu xam nañ baax ni ñu ko daan defee pour contrôler loolu tamit farata xam ne bokk ko xel waaye bu dee léegi nga xam ne jamono ji soppi ko na alal ngay joxe war ngay xool boo xam tamit est-ce li nga joxe méngoo naag li ñëw wala déet bokk na ci léeg-léeg nga dolli ziyaada rawatina bu fekkee góorgóorlu da am ci ñoom ki soxna yi nga def ziyaada léeg-léeg yokk li ke lilladina ahsanu alxusna wa ziyaada bokk na ci ndax dolli googu da ciy am solo léeg-léeg ndax jamono yemuñ ku ne xam ne ne continuer ci benn som kese rek ci heure yëpp gënut ndax léeg njëg yi day daanu di yéeg kon loolu tamit góor gi war na koy bàyyi xel bu baax su ajoo mu yokk ci tuuti mu def ko ngir sàmmoon sàmmonteeg situation yi nga xam ne mooy am ci marché yi kon loolu farata la ñu bàyyi ko xel bu baax moom tamit am na it ay njumte yoo xam ne léeg lekk day am ci waajur yi wala ci ñi joxe dund yi njumte yi bokk na ci euh, continuer bañ koo dakkal donte ñi nga xam ne dem nañ ba nekk ay mag waxoon nañ léegi ne ci fiq dañuy wax ne njaboot gi ku ci dem ba nekk euh, la fu nekk ku baaleex foofu la warteef bi wa yam kon li gën ci waajur bi heure ba bu jotee mu teel a yan doomam responsabilité ngir mu xam ne daa war a jug waaye continuer rek di ko yor gënut lool la la moo tax gënut mooy su tàmmee loolu su xeexee xëy day sonn moo tax li gën mooy teel koo yan taxmil loolu tamit farata la ci waaye bokk na ci yow mi yor kër gi nga fonk sa ñamu bopp sàggane ñamu ñi ngi des loolu tamit gënul bopp li gën mooy même bu amee lu ñu tuddee at taamul xaas teewu tamit ña nga des nga bàyyi xel la ñuy jëfandikoo bu baax ndax loolu ak jaam yàlla gurée la ba ci sax dëkkuwaay yi yow sa dëkkuwaay rek moo lay itteel moom nga rafetal moom nga defar ba mu baax dëkkuwaayu waa kër gi moom doo ci am soxla loolu tamit gënut ndax as na min xaysu sakantu dañu xool baat bu baax kon loolu dañu ko war di bàyyi xel bu baax kon wur ñu wute wala bu ñu wutee tamit wurte ëpp wuroo cee jàmbat tamit di joxe lu toll noonu ak jaam yàlla gu toll noonu di ko jàmbat di ko mettalu tamit loolu gënut waaye tamit soxna yi tamit